naa ko lii laa ci gis mais dinañu continuer waxtaan bi xool naka lañ ciy génnee dinañ ko gën a yaatal sax yow ak euh, monsieur ministre dañuy bàyyi rek Fatou Abdou Ndiaye moom itam mu tàbbi ci waxtaan bi ginnaaw na ko la proposition ay mesures yi mu wax ne jël na ko euh, ni nga ko waxee ci ndaw yi mais est-ce que loolu du répétition bu fekkee ne yàgg nañu ko dégg ci le président de la république euh, tey mu ñëw waxaat ko xam nga yàgg nañu dégg ne président nga ne mu wax ay solution jëmee ci ndaw mi ci fànn boobu nga ko jëmee. Mm-hmm. waaw defe naa loolu nañu ko wax répétition. Euh, détermination laa ko tuddee man détermination taxawaay bu dëgër ak gëm-gëm ci loolu moom dafa am xam nga sunu réew mi euh, ak réew yi ni mel dañoo am sunu population ni mu tëddee bokk ak tëdd population ñeneen ñi. xam nga ñun nee nañu même ci Covid bi ni mu ñëwee nee nañ ñun sunu population population jeune la. parce que comme population jeune la mooy risque Covid bi demul ci xale yi moo tax xam nga loolu avantage la foofu mais de la même façon am na fu nga xam ne tey ni réew mi bindoo ni àdduna bi bindoo jeunesse bu nga xam ne ñi am fanweeri at ak juróom ñi amagul fanweeri at ak juróom mot nañu ñaari yoon ñi nga xam ne am nañu lépp fanweeri at ak juróom loolu taxaw dafa am ay nu mu xam ne dañoo war a taxawee ci régler problème boobu xam nga xaleel problème mu xale bokkul ak problème mu boroom kër boroom kër li muy ñëw yare ay préoccupation xam nañ ko mooy yare doomam yore famille am yar leen ci lu baax wut nu mu leen téye fexe ñu jàng pour que ñoo am avenir loolu mun nañ ko moom la société yëpp bindoo mais tey dañoo am société bu nga xam ne du fee du famille bi mooy base social bi tey base sociale bi xale yi la dans leur individualité xale yi dans leur préoccupation xale yi ci seen bëgg-bëgg pour jëmee réew mi kanam bokk ci réew mi ñu koy tabaxal mooy di dignité nit du nekk nga bokk ci réew mi nga bokk nag ngay taxee préoccupation yooyu day doon ay préoccupation yu nga xam ne yu tëg yu nga xam ne ay taxawaay yu leer ak gis-gis bu leer moo koy am mais tey li ñu gis mooy Covid bi Sénégal président ba ñëwee ba léegi gis ngeen ko li mu njëkk a bokk na ci mesures yi mu njëkk a jël mooy ne am na am na structure yu bëri yi nga xam ne dañuy liggéeyal ci xale yi xool ni ñuy développé d'encadrement de la jeunesse la ñii dañuy financé ñii dañuy jàppale ci ay projet ñii dañuy accompagner yooyu yëpp mu gis ni action bi ni ñu ko disperser amul efficacité bokk na ci mesure yi mu njëkk jël mu jël agence yooyu mu regrouper leen ñu ñu tudde woon rationalisation pour que moyens yi ñu fay def muy moyens yi nga xam ne ay moyens yu efficace la pour régler problème mu xale yi. mais mais est que loolu monsieur le ministre euh, traduirul un peu l'échec de la politique de l'emploi des jeunes wax nga ko gis nañu fonds JIP dégg fi fonds six dégg fi DER wax nga sànq structure yu ci mel ni ne ANPEJ ANEJ ba ci ABEJ dans la banlieue yooyu yëpp état taxawal ko entre 2012 ak léegi te amul benn njariñ daanaka euh, ci li nga xam ne moom mooy pratique bi wala ci ci réalité bi non euh, non njariñ bi en quelque sorte. wax ne gis mosuñu njëriñ da ne dajalewul problème yëpp ni ma la waxee. mais boo nee amuñ njëriñ man du ma ànd ak yow ci boor. ndax am nañu njëriñ kon. non am nañu njëriñ am nañu njëriñ yu bari am nay projet yu bëri yi nga xam ne ci yooyu lañu jógee ñu jàppale leen ci. maintenant li ma wax mooy kay am na benn problème bu nga xam ne bu nekk xam nga marche àdduna nu muy doxee. mais loolu bu amoon njëriñ est que tey dinañu dinañu yegg si fii àdduna ni muy doxee. Mhm. bintu mhm. day am ay toujours pays en développement la ñu am day am ay priorité d' accord mais priorité jeunesse ci politique président de la république lu tëggu la ci tey bu ñu man man man li may wax mooy que bu ñu jëloon moyens yi ñu def ci politique bi de la jeunesse bu ñu ko ci moyens yooyu rek bu ñu ko jëlee defaat moom président li mu wax ne nañu taxawaatal xare yi moyens yi ñu def ci politique de jeunesse bi mën nañ ci trouver ay moyens yu consistant yu gën a consistant yu nga xam ne dañuy orienté prenons par exemple tey boo jëlee budget Sénégal budget bu Sénégal vingt cinq pour cent yi éducation la jël ak enseignement supérieur ñoo ko jël loolu ku ko wax xam nga ne ci xale yi nga ko jël vingt cinq pour cent cela veut dire mille milliards li ñuy dugal at bu jot ci njàngale mi enseignement professionnel dina ci jël à peu près cent deux cent milliards enseignement supérieur jël ci trois cent milliards li ci des 500 milliards yi ñu jubbu ko ci éducation nationale loolu ci njàngaleel buñ jëlee wax nañu DER wax nañu euh, ANPEJ wax nañu su programme yëpp yooyu yëpp buñ ko jëlee dajale ko dina ci teg lu toll ni 200 milliards yi nga xam ne dañ koy def loolu yëpp ci jeunesse bi lañ ko jëmee tey maintenant mun na am ay insuffisance mais insuffisance yooyu dañ koy corriger au fur et mesure parce que mën nañu wax ne président Macky Sall muy jël ba muy ñëw li ci gën a bëri ci li fi amoon ci politique yi gisuñu woon muy muy muy meññ ci quelques années am na beaucoup d' yu fi am espoir yooyu la ñuy gën a renforcer tey ci dynamique boobu lañ nekk te man li may ñaan mooy ñu xool tey li gë ci am pas dellu ginnaaw parce que bu ñu delloo ginnaaw day jafe parce que ci li ci ginnaaw man mun naa taxaw fii ba suba di la ne non lii lu baax la lii lu ban la no mais li ci am importance mooy wax ji li fi xew ci réew mi wax ji mu jóg ndax ñun am na ñuy moyen régler ko ak yan moyen ñoo koy war a régler ak ban démarche la ñu wax taxawal démarche ko man ci fànn boobu laa jëmee mm-hmm. te fànn boobu bu ñu ci jëmee parce que il faut parler de li nga xam ne ce kii et productif sa qui apporte quelque chose mais génn si defu leen lii def ngeen lii am na lu ñu def Sénégal am na lu ñu def lu bari mm-hmm. président Macky Sall am na lu mu def lu bari mais wax ji bu ñu ko jëmee foofu tey du loolu la Sénégalais yi di di bëgg tey parce que débat yooyu Fat du def nañ ko ba tàyyi ba ñu egsi fii di wax ñun di ñu déglu kii dina new def na kii dina defuma kii di alors que man damay ñaan ñëw taxaw ci ne li ñuy def lii baax na ci nañ ko capitaliser lii des na nañu xool moyens yi nañ lañ koy defee dina wut dem wuti moyens yu bees yu yu bees dina wut xool moyens yi ñu am comme ni ko président waxee ñu defaraat ko fan yi pan fan yi ci passé gis nga président ni mu waxee dafa ñëw ne moom dafay woote ci àdduna parce que amul benn pays bu mun a développé ci moom donc mu wax na ñun Sénégal ñi yeneen réew développé yi di def développé woo nañ tam def mooy ñu am suñu possibilité ñu ni def ay suñu tirage spéciaux di financer suñuy besoins yooyu ay démarches la yu nga xam ne boo ko amul taxaw fii dina def lii yi def loolu amul benn réew suuf développé bu mën a régler problème am yëpp euh, ci biir ci biir recherche de solution yi waa euh, ci discours am moom président la République wax na ne dina joyanti euh, budget yi ba ndaw ñi gis ci seen bopp est-ce que loolu mën na ci sukkandiku wax ne solution la ci ndaw ñi nu ñu amee jafe-jafe ci wàllu koy muy réorientation budgétaire boobu mu doon wax xam nga dafa ne loolu ci ci be ci ci tàng-tàng bi la man xam naa ne conseil des ministres suba dinañ ci waxtaan lu ci gën a bari ministre yi ci liggéey dina ci liggéey loolu dafa wax ne léegi léegi nii dinaa woote sama gouvernement ci moyens yi nga xam ne am nañ ko ñu xool nañ ciy def mais man mi ma toog fii si c'est euh, sama digganteeg yàlla rek laay wax xam naa ne politique de jeunesse parce que man fi ma yore jeunesse bi moo fa nekk enseignement supérieur lu ko lu lu mu bëgg la te lu ko nar la te buy wax ci discours am da ngay dégg mu ne leen nañu bàyyi xel ci xale yi wax na ko avant mën na am sax prophétie la woon dafay ne bàyyi leen xel ci xale yi parce que xale yi ñu ak ñoom suñuy gis-gis il faut ñu bàyyi leen di leen déglu ñuy gis-gis te président boo ko gisee xale yi buñ li muy recevoir ci xale yi réussir di leen jàppale loolu am solo la maintenant problème am na fàttaliku yooyu yëpp may wax lii baax na lii baax na nañ euh, am na njëriñ lool keneen di ne noonoo am na lu des am na njëriñ lool mais léegi nañu taxaw rek waxal Sénégal parce que Sénégal yi ñuy déglu tey Euh, solution solution ay solution la ñu bëgg ñu wax leen ñu dalal ñu dal gën a dalal xel yi. c'est euh, wax rationaliser mais est-ce que taxaw également euh, reconnaître li nga xamante ne peut-être bu ñu ko déggee ci kàddu président de la République dafay nuru peut-être la politique li ma la wax sànq de l'emploi de la jeunesse boo xamante ne dafa laajte. soxna si. Mhm. man déglu naa président li mu wax. Sénégalais yi déglu nañu président lu ñu wax. déglu naa retouru Sénégalais yi li ci sama digganteeg yàlla laay wax nii mais discours président li mu wax gisuma ci ko ko ci ñaa ŋàññilu ku ko ci ŋàññi bu bu fekkee rek ne position partisane te man jëluma position partisane tey ku ŋàññi discours président gisuma ko ci Fat Fat Abdou yow boo ko gisee nga wax ma mais gisuma ko ci par rapport à la circonstance bi ni mu jëlee auteur xam ne Sénégal lay waxal xam ne moom mooy njiitu Sénégal wax nit ñi ne dégg naa leen li ngeen wax wax naa la ko ku dégg na la da ngay yow kooku dematul di ne non man defuma nii defu non politique bi di tey man fii gouvernement du Sénégal gisuma ñun ñuy taxaw di wax ak sénégalais di leen noo non defoon nañu lii defuñu waan lii non mm-hmm. dégg naa leen waxta ñu ngi waxtaan si suñu biir ñu ngi waxtaan ak yéen dinañu xool nu ñuy waxtaanee pour régler problème yi man loolu laa jàpp ne moom mooy orientation bi. alors ci apaisement boobu xam naa ne ñëpp a ngi ci ñu ci bare ngi ci ba ci ni nga ko waxee le chef de l'État le président de la République alors loolu lépp li ko fi andi itam euh, il faut que ñu aborder ko waxtaan ci ak yow muy mbirum ko euh, placé ko sous contrôle judiciaire alors ban lecture première ngay def ci par rapport ak à cette situation. bon xam nga lecture première bi ma ciy gën a def benn lecture intellectuelle laa ciy def ak benn lecture bu nga xam ne lecture citoyen la rek lecture bu ma ci njëkk a def mooy événement yi ba mu amee ci li passé Sénégalais yi wax nañ ci waxaat nañ ci mënuñu ko occulter ah mun naa mën nañ ci dégg mais li ma gis mooy démb Ousmane Sonko ba muy wax dafa ne nañu gaaw ñu jugé ko bu jugement bi yax loolu man li ma ci jàng mooy mooy kon moom jàpp ne ne justice dañuy wax dëgg. fu ñu ñëw leen jugé mooy jàpp na justice dana. ñu dem ñu waxoon li ñu waxoon ci kanam. ci ginnaaw dootuma ko jàpp du loolu la ñu waxoon dañuy wax tagg na gendarmerie. même bu ma d'accord ci ñuy tagg gendarmerie di bàyyi ñeneen parce que Sénégal ñëpp force de sécurité ak défense yi ñoom ñëpp ñooy waxtaan ñoo gérendoo mm-hmm. tagg na gendarmerie mais loolu cela veut dire que système bi du système bu ñuy sànni du système bu ñuy sànni léegi man li ma gëm mooy que ne moom nee na nañu dem jugement mu ngi ci diggante loxo juge man ministre la du ma du ma wax ci li nga xam ne mu ngi ci juge ci loxo juge loolu mooy position intellectuelle bi beneen position bi pour ñu wax xam nga dama gis man euh, tukulóor laa bu nga xam ne ci olof yi laa dama dégg olof yi di ne bu ay nit di wër garab fekke woo ba ñuy wër garab ji boo ci ñëwee ne da ngay nettali da wax loola neex boo gisee ay nit di jóg ci ci garab bi am ñuy daw di gestu am na lu ñu ragal la nekk fa ñu jóge ñaari wax yooyu man ci wax ci fii moom laa ci gën a jàpp fekkewuma mais am na ñu lu fa jóge nit ñi di gestu la fa am nañu xool juge yaa ngi juge nañu bàyyi juge yi ñu ñu juge inculpé nañ ko def nañ ko sous mandat de dépôt juge bi sous contrôle judiciaire mhm. defuñu ko sous mandat de dépôt alhamdulilah que defuñu ko d'ailleurs mhm. Mhm. parce que kenn du yéene nit mu dem kaso kenn du ko yéene ñu bëri jàpp ne c'est une décision boo xamante ne non non